Mballo Dia ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay euh, Mbemba Dramé. yow yaay secretaire général FGTSB yaay diriger itam euh, syndicat unique des travailleurs de la santé de l'action sociale ñu gën ko xamee ci SUTSAS euh, ci waxtaan woowu la ñuy dooree laata ñuy ñëw ci FGTSB ak congrès bi ngeen di waajal mais déjà am nañ gouvernement bu yees am ministre bi nga xam ni itam moom lañ dénk wàllum pàcc bañ ko taxawalee ba tey wala ba ministre bi bañ ko falee ba tey déggaguñ ci wàllu wi ni mel lan mooy sa élément de réponse bu njëkk ci euh, par rapport ak nomination ministre bi. nomination ministre bi moom amuñu ci euh, benn problème parce que ki nga xam ne xel ni réew mi yëpp ñoo ko jox euh, ndombo tànk yi tax mu war a nommer ku neex ci fonction civile et militaire bu ne diw lay dénk banqaas bi naan santé action sociale diw boobu ñun du def lu lu respecté ko Euh, respecté ko ndax ki nga xam ni moo ko fa teg te mu war ko fa teg respecté ko aussi parce que buñ ko wuluwul woon duñ ko fa teg ah léegi nag euh, ñun tamit euh, dégg nañ ko mu ngi yëglu waaw wante ñun ay syndicaliste lañu li ñu soxal mooy du caage nit ki lu mu nar ak lu mu namm ak lu muy wax mais li muy jëf bu nekk buñ ko seqeek moom ci loolu lañ koy nattee ci la ñuy seet ndax li muy wax méngoo na ak li ñuy def ndax wala moom li mu bëgg méngoon na ak li nga xam ne moo ay loolu yaakaar nañ ni war mën a yóbbu kër gi kanam parce que yàlla def na quand même avancé significative yi am ci kër gi yëpp suñu ay xeex la ñun si sas wala ñu bokkoo ak ñeneen xeex ko donc foo doon laal laaj mën a yem pour le moment ñu naan ko nag bismillah euh, euh, yal na fi fekk jàmm et bis bu ko na natoo aussi na na namee aussi mu nar fi jógee mu jóge fi ak jàmm ak salaam. nee na dafay réinventer li nga xam ni itam moom moo jëm ci wàllum pàcc mi. waaw waaw comme li ma la moom ay mébétam ay mébét la parce que am na ku woon kooku sax moom président de la république eh, eh, maître Abdoulaye Wade ba ñu ngi koy nuyu au passage moom moo ni woon bu fegee dañuy topp ci feebar yi di dàq feebar yi di topp seen ginnaaw di daw duñ leen dab mukk parce que pis euh, maanaam loolu duñ ko duñu duñu duñu duñu duñu gagné combat boobu yëpp c'est un c'est une c'est un combat perdu d'avance ñun nag yàlla def na succès ñu juddoo ba léegi dañoo yàgg wax ni ñun li ñu bëgg mooy un système de santé performant mobilisant motivant mobilisateur mais aussi performant et et résilient comme ni ñu koy waxee wante nag dañu ni médecine préventive la ñu gën a bëgg maanaam ñu fexe ba ba fexe ba feebar ñu aar leen du ñu ñëw wala bu ñu ñëw tamit seen doole du bari wala bu seen doole bari tamit du ñu lor ñun loolu la ñu wax médecine santé plus préventive que curative parce que xam nañ ni feebar yi moom dinañu ñëw ñun ak feebar ñooy ànd wante mënuñu am xaalis mukk bu doy pour mën a faj ay feebar wante mun nañu am xaalis pour fexe ba ñu wàññi yenn feebar yi parce que boo demee ci yenn réewu tugal yi di nga gis ne yenn feebar yi fi gën a bari. te amu fa parce que fait parce que euh, dans la prévention def nañ ci lu lu bare bare bare bare te loolu aussi xëy na nekkul objet débat bi fu mu nekk nii mais dañu xaar moom ba mu wax ni moom lan la gisee lan la gisee euh, euh, réinventer maanaam maanaam indi beneen fem ci ni liggéey ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi xaar ci loolu. waaye moom revendication bi moom dina ko fekk ci kaw table bi. waaw ah, mais xam nga moom mbër moom bu lu bëree jarul muy dem ci làmb ji mbër kay bëri moo tax dafa mel ni aussi éliman bu dee dem day bu dee dem ci jàkka ji te du jiite jàkka kay nekkul éliman mais syndicaliste tamit. Eh, bu dul xeex te comme militaire aussi bu dul xeex loolu amul njëriñ maintenant li am solo mooy nañu fexe ba duñu jàmmaarloo te loolu mën nañ ko bu ñu waxtaanee ba pare wala lépp lu ñu xam ne d'accord nañ ci ñu wéyal ko loolu histoire du am parce que nekkuñu fi seulement dañoo bëgg di jàmmaarloo rek di jàmmaarloo déedéet jàmmaarloo bi surtout daf ko état da ko eh, ko encadré balaa ngaa dem ci ay revendications balaa ngaa dem ci ay grève am na préavis yoo xam ne dañ ci war a waxtaan balaa ñuy dem ci loolu wante àggaguñu foofu mais li am solo mooy tamit ñëw no fekk nañu ñun ci xeex boo xam ni eh, depuis depuis deux mille vingt deux ñu ngi ci xeex boobu mooy xeexu données sanitaires maanaam xabaar yi nga xam ni eh, ministère bi war na ko am ak gouvernement bi pour que bailleur de fonds yi xam fi ñu toll ak moom ministère ba pare seet aussi li ñu leen li ñu leen jox fan lañ ko def pour ñu mën a laaj leneen ak ensuite bu fekkee da nga bëgg a def dara aussi nga ma nga xam xabaar yi xam ni ñoo war a tax nga nga war a dem fa nga jëm maanaam projection wala planification loolu le système sanitaire est devenu aveugle depuis mai deux mille deux li ko waral nag doon nañ def ay plan d' action beeg ci onzième plan d' action boobu temps sax amuloon premier ministre mais premier ministre bi ñu ko nommé quelque temps après mu wooñu mooy Amadou Ba juróom-ñaari fan ci weeru mars deux mille vingt trois ndem si yàlla mi ngi doon dund mu ànd gësam ñu ñëw. mu leen effectivement seen plateforme la mais am na ñu jotagul mooy collectivité locale yi mais maire yi ñoo ñoo ñoo parewul ci lim bi ñuy def euh, te aussi établissement public santé aussi am na lu ñu war a mën a def léegi may leen ma fukki fan ak juróom pour que maire yi ak administration bi yëpp jublu ci loolu ñu waxam ñan ñu xayma ñan ñoo war a fayeeku augmentation pour ñu fay leen parce que amuñu problème mu koom pour loolu parce que boobu tax sax euh, Mamadou Moustapha Ba ñu ngi koy nuyu au passage newoon na ni. lu tol ni soixante milliards mi ngi ci gafaka gi nga xam ne bu dee fay rek loolu jafewu leen wante nag bu ñu war a fay dañu war a xam kan la ñuy fay kan la ki yar am du ñu def sax contrôle a priori mais peut-être contrôle a posteriori loolu la ñu Amadou Ba waxoon le 7 mars 2023 far yàlla woowu ñu woowu ñu mais ñun tamit ñu ne bàyyi nañu grève bu grève bi ñu doon def mais données sanitaire bi rétention bi dañ koy continuer parce que gis nga demoon nañ sax boobu boo vaccination yi ba delloo glacière yi ak yëpp mais ñu ñoo dellu ginnaaw daal di delloo vaccination bi ak yooyu yëpp te xabaar yi boobu ba léegi parce que personnel ministère de la santé gardien chauffeur brancardier ak administratif ba léegi fayeku ñu seen augmentation yooyu tout comme les collectivités locales parce que ànd gësam la mais santé ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk collectivité locale loolu nag moom mi ngi fi léegi nag defe naa ni bu bëggee day réinventé aussi war naa ay xabaar donc war na juble loolu ci ci tool boobu lépp moom ci wàllu boppam et ñu ngi koy xaar tamit ci loolu. lan mooy situation pat mi fii ci diwaanu Sénégal dafa sooxe wala problème yi tey la wàllu gën a ay. non mënuñu ñu dafa baax trop mënuñu wax dafa sooxe mais li am solo daal mais saa yu ko soxlaa dëgg-dëgg réew mi yëpp soxla ko. am na taxawaay boo xam ne buñ ko taxawee danañ xam ne xel ni système bi am na benn résilience am na benn dëgër laay loolu moom mënuñu ko mënuñu ko bañ euh, li ci am solo nag mooy système la euh, nit ñi dañuy yokku bis bu nekk mooy démographie bi euh, besoin yi aussi dañuy yokku maanaam dañuy soxla ay postes de santé yu bees soxla ay hôpitaux yu bees ay que pour la santé soxla aussi ay ay ay techniciens yu bees maanaam personnel bu bees ak équipement yu bees parce que avec modernisation technologie bi dafay avancer. mën nga fi am benn appareil léegi jënd ko ay milliards mais nga toog benn at ñaari at ñu ne appareil boobu am na yu gën wala yi nga xam ne xel ni bii bu paane dootu abati pièce am nga wuti beneen donc financement santé dafa poser problème donc maanaam li ñu mën a wax daal fi foo xam ni baax na trop parce que hôpitaux de de dernière génération yi tabax yooyu yooyu yaa ngi nañu am nañu solo am nañu maana ak yi war a génn comme ñu dante ak yu mel ñu koy rafetlu mais li mu liggéeykat yi ñoo néew personnel ak spécialiste parce que bu ñu bëggee ku cinq boo feebaree foo mën a toll ak heure bu mu toll ñu faj la faj mi gën loolu des na lu bare ay jéego yu ñu ci war a mun a def noonu laa ko mun a waxee daal mais nag fu mu nekk daal feebaru màgget la bari na foo xam ne boo ko lambee daal mu métti. waxtaanee ci beneen fànn bi bokk na ci euh, FGTSB yaay secrétaire général par intérim niki tey ci samedi gi di ngeen amal li nga xam ne itam moom moo jëm ci seen congrès euh, congrès boobu Mballo Thiam bëggoon nañoo xam lan mooy enjeu bi réellement. waaw congrès moom dafa bokk ci texte ay parce que congrès moom. yent euh, at yu nekk wala juróomi at yu nekk centrale syndicale war na toog xayma ko euh, congrès ci boppam mooy tax ñu mën a yeesal banqaas yi daal di aussi yeesal kuréel yi loolu mooy sabab bi maintenant FGTS bi même bu dul woon dara sax ki ko sox ki ko ki ko créé maanaam wala ki bokk ci ñi ko créé mooy ndem si yàlla Sidya Ndiaye ñu nga xam ne ñu ngi koy delloo ñaanal di ko ñaan yàlla gën ko dolli ko yërmande mhm. moom aussi euh, si FGTS deux mille deux mille vingt deux mille un la créé wu ba deux mille vingt quatre ñaar fukki fan at ak ñett ak ñeent musul dem congrès musuñu yeesal banqaas yi waaw te léegi nag moom moo nekkoon secrétaire général mais amuloon adjoint bon ñun bi ñu demee ànd gësëm ak moom ñu lijjanti li ñu war a lijjanti ak moom ak ànd gësëm parce que li mu soxla woon mooy décret yi war a gunge euh, loi d'orientation loi bi nga xam ni moom mooy def mise en œuvre fonction publique locale loi boobu woote nañ ko en deux mille onze mais loi boobu amul woon benn décret ànd gësëm man ak Sidya ñu ñëw gësëm ba ba gouvernement bi génne fukki décret ak benn teg ko sama loxo man mi ma tek ko ci loxo Sidya Ndiaye moo tax ñu war a wax mise en œuvre la fonction publique locale kooku ñun la ak ñi nga xam ne nekkoon nañu si conseil euh, euh, conseil régional ñu redéploie leen amee leen ay ay indemnité de départ à la retraite ak ay retraite mun Abdoulaye Dione yàlla ko yàlla yërëm moo génne woon ligne de crédit de cent millions ñu fay leen bi loolu yembee nag le Sidia Ndiaye daal di mbaaloo ñun war nañ def lu gën central syndical yi moo tax SUTSAS dafa war a ñëw ñu ñu ànd bu ñu àndee dinañ am lu ëpp dix pour cent te dañu mën a toog fi ñu gën a kawee fa ñu toog te defuñu ñu li ñu waroon def li ñu doon xaar ci ñoom amu fa. Mhm. loolu moo tax SUTSAS daal di réunir daal di ñëw mais SUTSAS bu bu ñëwee SNTP daf ko topp Sat Santé bu bu bu bu Ndeye Diakhaté daf ko topp ak yeneen syndicat yu bees yëpp topp ñu ak SELS a topp ñu. ah léegi nag ñooñu bu ñu ñëwee far yàlla ñu dem élection mënuñu woon dem congrès avant élection élection yi pare ñu am dix point vingt li jaadu mooy ñu def élection élection yi nag bëggoon nañ ko def mais présidentielle bi moo galanu woon xamuñu ndax dina am premier tour ak deuxième tour mu loolu weesu ñu ne dañ koy bëgg a def Korité ñëw ñu Korité bi dàqu ñu koy def tey ci samedi bi mhm. loolu moo tax parce que ñun newoon nañu il faut àlakulaal ñu dem congrès mhm. yeesal banqaas bi mais comme que nag man maa doon numéro deux amul benn numéro deux même ñuy wax nii yëpp gis do doo ñu la gënal ah problème bi fu mu jógee mooy dafa am ñuy xëccoo ni ñoom ñooy numéro deux te mosuñu nekk numéro deux parce que yow xam nga ni xel ni bi may nekk numéro deux Sidia Ndiaye dafa def point conférence de presse ñun ñëpp ñu nekk fa ñu lii résolution bi def ma numéro deux parce que amul woon ci centrale syndicale FGTSB mhm. ba tax na man ci sama wala boobu man maa toogal si Sidia Ndiaye eh, fële premier mai bi ñuy joxe cahier de doléance mi nga xam ne at mu nekk moo fa daan dem man maa bind kayit bi jox ko excellence Macky Sall mhm. président de la république hmm. mu ni ma Sidiya Ndiaye de nee nga dafa jaga jaga di moo tax nga wax ci turam waaw nu mu mel man ko sonn na lool mu ne mun naa ci dara man ko coow la des ci la xëy moom daal di woo le ministre Mamour Salé hmm. woo daal ni Mamour Salé na woo général Dieng woo ma a lijjanti Sidiya Ndiaye noonu laa ko hmm. ak salim national yóbbu ko hospitalisé ko fële à principal ma dem le 4 juin le 14 juin mu génn àddina donc moom tamit man maa déposé dossier ministère du travail dossier pour que mu nekk FGTS nekk candidat ci élection yooyu man maay mandataire bi man la Samba Sy ni monsieur Samba Sy envoyé lettre ni mën naa désigner ñi war a toogal euh, kii bi ci ci ci séminaire sali bi ñu war a toogal FGTSB pour affaire yi ma lay wax de représentativité mhm. donc ma tànn ñi dem foofu mais mais moom aussi Samba si moom am envoyé lettre confidentielle ni ma désigner ki war a wuutu Sidya Ndiaye conseil économique social parce que mandat yi jeex na man ma ma tontu ko type lettre hmm. mais bi élection yi bëggee bloqué wu parce que amoon na spécimen de signature bu ñu war a def te FGTSB xëy na moo amoon blocage ñi naan dañuy def photo wala yooyu man ma bind daal leen ñun amuñu photo li ñu mën a def mooy logo boobu mooy suñu mooy suñu suñu mandarga moom la ñuy voté te ñëpp spécimen boobu la ñuy voté mais yaa xayti kay Mbemba boo gisee loolu yëpp am dialogue national ma demoon euh, ouverture ak clôture ci ci ci deuxième personne morale mais bu résultat yi génnee kay man na ko sàmm si war a jox résultat mais du ay caageenu ay nit bind nañ benn lettre rek ñu ne comme lettre boobu am na. léegi dañuy xaar résultat yi sa victoire bi nga xam ne dix pour moo mën a tax ñu mën a wax ak. le président son excellence Diomaye Faye hmm. Bassirou Diomaye Faye bu ñu félicité hmm. mooy tax aussi ñu wax ak son premier ministre euh, son Sonko Ousmane Sonko c'est euh, hmm. excellence Ousmane Sonko war a wax ak moom ak ñeneen ñi nga xam ne war nañu waxal parce que place boobu dañ ko xeex ba jot ko parce que ñu ngi jógee cinq point cinq li Sidia Ndiaye amoon deux mille dix-sept ñooñu ak suñu mbool ak suñuy pexe ak suñu campagne egg ba dix point vingt maanaam double score bi te yamuñu fa dem nañu ba ca sëgu euh, sëgu yof ni ko jàmbaar ñu ngi lay delloo njukkal parce que li nga bëggoon Eh, wut nañ ko yàlla jàppale nañ ko ba am ko am nañ dix pour cent malheureusement fekkoo ko mais taxawaay taxawaay bi ñu fi doon taxaw dinañ ko ne di ko fa taxaw ñun loolu moo ñu taxaw jóg ci loolu la ñu. ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Mballo Dia Thiam. maa lay gërëm di gërëm réew mi. jërëjëf yow di fàttali ni yow yaay secrétaire général FGTSB par intérim yaa dirigé itam syndicat unique euh, liggéeykatu santé ak action sociale ñu gën ko xamee ci SUTSAS. dëgg rek nga wax jaajëf. dëgg rek nga wax jaajëf.